mais euh, par exemple la coalition Diomaye président fépp fu ñu nekk ci gox yi di gis ne ñoom ñu ngi activé waaw def seeni caravane tout le monde parle euh, d'une campagne très timide euh, mm-hmm. sur le plan de la mobilisation sur le plan de l'offre programmatique même euh, même sur le plan de l'animation politique des na donc kon euh, am na ci ñoo xamante ne sax même ci biir candidat yi mm. da ngay wax ak ñoom mais mais sa waay ce que li jar na yàq xaalis Euh, ah parce que peut-être mën nañ dem ba ci biir ñu annulé waat ko donc cette incertitude là euh, peut-être ralentir na euh, candidat mais nag li nga xamante ne yow yaa ko moom. Hmm. parce que élection bi président Macky Sall ko. déedéet mais soo mën nañ dem ba ci biir candidat yooyu di ci loolu fan la ñuy fan la ñuy wékk loolu. parce que euh, mooy li ma wax rek. loo xamante ne dañoo xam lu ñu xamul li ngay wax noonu. non c'est-à-dire ak lu ñu xam du am du xam parce que président Macky moomul élection bi. ba di ko reporter ni mu ko neexee. Mm. tàngal boobu noonu moomu ko. dañuy téye loxoom wala bukkee léegi quand même du yëfam moomul élection bi bay taxaw na bu bés bu ko neex la koy organiser wala du ko organiser. Mm. kàddu sénégalais yi la. le droit de vote des sénégalais. Ouais. alors donc man je pense que euh, am na effectivement mécanisme interne ak mécanisme externe. ñoo xamante ni ci biir réew mi la nekk bëgguñu élection am. am noo xamante ni ci waa bitim réew bugguñu élection am hmm. alors ñi nga xamante ne nag danoo nekk ci réew mi te bugguñu élection am ñooñ ñooy jafandiku ci Karim Wade parce que quand j'ai mu partager ces audios aussi ridicules que pathétiques oui avec des montages yoo xamante ma déglu naa ko mais da ngay da ngay yaa yaa yaa yaa une partie qui revient à chaque audio. mooy bu tunnel. tunnel nañ bàyyi caaxaan waay nañ bàyyi fonto sénégalais yi nañ bàyyi pom yi. conseil constitutionnel li mu def ci Karim Wade. Hmm. waxuma li mu def ci élection bi ci kii bi yëpp de. Hmm. Karim Wade loolu droit la. mais ñoo xamante ne dañoo taxaw démontrer. Hmm. ni ñu leen tooñee ci conseil constitutionnel avec des preuves claires. docteur Abdourahmane Diouf. waay Bougane Gueye Dany. Mimi ñooñu dañ la taxaw jox la ay preuves carrément que ni conseil constitutionnel daf leen a tooñ. kenn mënu koo contester. ci li ñu wax yow li nga wax amul bopp amul génn. di ñu génnal ay audio montage saay bu ñu bu ñu fonto sénégalais yi. Hmm. kooku moom moo waral nekk tey jii nii la cause de report wala ñi ngay dute yow ci élection ndax dina am en tant que candidat. Hmm. ku bëri xam kooku noonu. Hmm. yow en tant que candidat ngay dute amoo fulla waay. non mbir mi moomu ko. Ah. président Macky Sall moomul suñu suffrage moomul suffrage yu yi. kon ki nga xamante ne tey conseil constitutionnel moo validé sa candidature. Hmm. ngay toogaat di hésiter ndax élection dina am am du am. justement non parce que bukki bu yàbbee waxambaale ci doxin wala. bu leen gisee ngay di doxee nee sax moo koy reporté. ndox ah. jëm ci élection yi. wan ko ne nekkuñu ci benn possibilité de report. kon yow da ngaa bëgg a wax ne kon candidat seen bopp kii poids bi waroon am am na ci déclaration commune bi waroon wane ni. wax daan naa ci ak candidat sur le caractère timide. maanaam pour wane ni. de leur campagne. Ah. ñenn candidat ñu taxaw ne wóorul ah bu saa yi da ngay dépenser sa xaalis après ñu ñëw reporté waat. mooy loolu wóorul la dañoo xool gis seen yenn morom yi xam ne ku wéet yaa xam sa bopp. xam sa bopp est-ce que a xam doucement c'est-à-dire man ku terewul quand nga campagne ñëpp xam nañ ni coalition Diomaye bi moom saa fu mu jàll dafa dóom loolu moom c'est la vérité bu ko kenn yéem a sax mais loolu terewul nga campagne nag parce que attention en 2012 comme en 2019. Hmm. gars yi xamoon nañ ne Macky Sall mii mooy gagné mais terewul leen terew tere leen campagne parce que am na ñoo xam ne campagne bi ñu ciy campagne ce n'est pas pour gagner en vérité. mais donc. tribune la pour peser sur la balance. ultérieurement après donc kon xam ne Diomaye moo leen ëpp doole. loolu terewul gaa yi campagne mais li tere gars yi campagne mooy génne si ñu xaalis dépensé ko te élection du am loolu nag laa ne man dama jàpp loolu pour man rax na ñàkk fayda parce que ku moomul bokkul ci élection bi Macky président Macky Sall Karim Wade ak man ñoo yem ci élection bi. ay électeurs ah. képp lañ ci. Hmm. aram. foofu laa ne question bi déggoo ma ne la si loolu moom laa dul ñëw fi procesus bi toll. Hmm. Euh, PDS parce que am na intérêt à agir maanaam. li ma bëgg wax hmm. mooy. est-ce que yoon may na ko ci fi processus bi toll moom bu dugalee dara comme recours mu mën a am jeexital ci processus fu mu toll. Uh, est-ce que loolu moom moom moom laa wax fii nii uh, keroog Pa Ousmane. Hmm. ci radar bi. que ñoom qualité agir sax amuñu ko. ok intérêt agir amuñu ko parce que contentieux électoral da nga koy tijjil les candidats moom hmm. du candidat benn ñaareel ba mooy ñàkk euh, qualité de agir boobu noonu ñoom ñu ngi exiger. à ce que ñu respecter ñaari disposition yu code électoral moment bi ñu koy exiger noonu mhm. il demande la violation de trois articles de la constitution bi daw code électoral loolu dafa am sens loolu amul bopp amul genn ah, taalasman donc kon seen recours boobu noonu ca conseil conseil euh, conseil cour suprême cour suprême mm. Mm. cour suprême ci boppam la mu leen war a njëkk a wax mooy man mënumaa àtte lii ah, ah. waaw parce que c'est pas un juge coordinateur lui conseil constitutionnel moo euh, cour suprême du juge buy atte lu jëm ci élection léegi nag ñoom danoo danoo danoo danoo muus. Hmm. waxuñu reporter élection bi de. déedéet dañ ne. abrogel le décret convoquant le corps électoral. donc acte administratif lañu ah, dañuy dugg dans la chambre administrative attaquer un décret xam nga loolu boo ko déggee nii rek. dugal ci abus. waaw waaw xam nga boo ko déggee rek da nga naan effectivement c'est la compétence de la cour suprême mais soo annulé décret bi reporter nga élection bi. dugg nga kon donc ci contentieux électoral. alors donc foofu noonu amul lenn loo xamante ne. recours pour excès de pouvoir mën na ne. ci ci cadre bi. xam nga xam nga recours pour excès de pouvoir REP bi mooy acte de gouvernement. acte président de la république. léegi ñoom seen recours bi waxuñu ne élection bi lan lan lan lan lan li attaqué. léegi décret wu président bi. lañ bëgg ñu te décret bi boo ko annulé. élection bi du am léegi da xam nga euh, dafa am lu leen rëcc quoi ñoom. ñoom la bi balaa ñu koo jël. conseil constitutionnel ci boppam substitué woon na président. justement indi la 31. andi andi la date convoqué le corps électoral président ba mu ko defee la lan ko doon jëlal ñoom par extraordinaire. Mm. cour suprême ne leen wax ngeen dëgg. annulé nañ décret bi la décision du conseil subsiste. d'accord léegi il se cache derrière le fait que campagne bi matul vingt et un jours beneen contradiction ci biir PDS ñoom ba ñuy demande report ca élection ba woon vingt et un vingt cinq mhm. ca lañ commencé demande report kon ñoom li ñuy demander du seen problème du vingt et yi seen problème élection bi la hmm. léegi nag ñoom bokkuñu ci élection bi waruñoo wax ci élection bi lu dul dem voté yi ñëwaat hmm. képp la ñu am ci élection bi ñoo ko Aram Ndeye Aram Touré ñoo yam kese ci élection bi Karim Wade ak Ndeye Aram Touré kiif kiif ci élection bi kenn ëpp ci droit moromam dem voté yi ñëwaat toog hmm. léegi ñoom docteur Abdourahmane Diouf ñoom Bougane Gueye Dany ñoom Mimi ñeneen ak ñeneen ñu ñu recalé mais ku ci nekk dem nga rejoindre ki nga xamante ne moom nga dëppool xalaat ci élection bii nii Sonko mi nga xamante ne moom leen gën a tooñ ci candidat moom leen gën a tooñ ci candidat moom sax boole na lu ko neex ak lu ko naqari dem choisir beneen candidat. et d'ailleurs ñuy xaar mu génn léegi léegi dinaa. ànd ak Ousin su ko defee mu jox ñu xibaar yu mujj yi ci wàll wi. ca Cap Manuel waaw ca donc bu dee Ousmane Sonko moo capable de renoncer de respecter cette décision du conseil constitutionnel. ay la yéwén waa PDS qui n'ont jamais jamais amul lenn lu ñu def ñoom pour Sénégal tegu ci euh, état de droit ñoom daanaka defuñu ko. 2021 hmm. ba léegi dëkk bi traversé na crise bu ne ŋaawuñ. Karim tweeté wul sax moom. tweeté wul waaw ah, ñooñu ñooy taxaw tey naan ñu dañuy reporter suñu élection dañoo sonn Pape Moussa mu ngi laa ñi dañoo ñaan quoi. <laughs> xam nga xam nga dafa am yoo xamante ne Pape Ousmane. ñu yërëmuñ Sénégalais yi. waaye nañ mën a dépasser fii. non sincèrement quoi xoolal. Euh, man ñi ma xam te ñu bokk ci PDS ñoo ëpp fuuf euh, sama papa sax PDS la bokk. jamono yi de maa ngi koy nuyu fële ca euh, États-Unis ci New York. jamono yi nee nañ da nga leen PDS la. sama papaay bopp waaye nag bu ñu nekkul ci dëgg dama naan leen du dëgg. Ah. parce que lii du droit lii. yépp sénégalais yi la. lii bëgg a andil yi yeneen xeetu coono yoo xamante ne hmm. mais kii am day jeex. donc euh, Karim na def vidéo na def vidéo ñu xam alors ah, arab mu ngi laal sànq ah, ci poñ boobu ci laay duggee après mën a am ousin su ko defee mu wax ñu lay xew ca Cap Manuel ndax mbir yaa ngi yëngu ou pas. daa a génn rek euh, <laughs> la. laal la <laughs> caravane boobu noonu araf ah, ba tey ñu ngi gis ah. karo fa fa la ñuy ñu ngi élection ba faaw eh, campagne bi day neex parce que bu président président Macky Sall génn na pour Amadou Ba. mais pour Amadou Ba soo ko génnal Diomaye Diomaye. ah, ah waaw boobu foofu laa bëggoon dugg ak yow déjà. ak ralliement yi ñuy la la bataille des poulains ñuy bañ. waay mais daa mel ni ci lañ jëm nii. bu koor gi nag laay laay kii parce que seen bos day miti <laughs> te ñaar ñële euh, ay kii lañ <laughs> ñoom mënuñ mais ñaar ñee mënuñ dékku xiif <laughs> Sonko Diomaye séeréer ak joolaa bi moom seen bos du dem. Ah. mais moom ñoom ñeme nañ ñeme nañ xiif. Sonko li mu fi testé grève de la faim mënul xiif. Ah. Ah, ngi doon lekk na bàyyi mi def ñu ngi doon lekk. alors foofu laa bëgg nga ñëw ay docteur Abdourahmane Diouf bettu la léegi ngi finalement ñu dem rallier ci euh, Bassirou Diomaye fay léegi ñu ngi dégg euh, ki nga xamante ne moom mooy maître Tine